ñu profito pour euh, def appel

jàppoon ni incha allah mu tombeek alxamis di ëllëg ñu ñaan ku yàlla mën loo waa daayiratul muqtafina ña nga ca kanam waaye ñaanit it képp ku yàlla mën loo nga daw fekke ji loola muy bisu don de sang boo xam ni dañu koy dimbalee ñi nga xam ni ñoo nekk ci hôpitaux yi ngir ñu mën a am lu ñu dimbalikoo ci seen wàllu wér yaram te ñuy ñaanit it incha allahu ña fa nekk yàlla yëkkati leen ak jàmm képp ku tawat yàlla la yàlla saafara ñuy ñaanal réew mi di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan yàlla dolli fi xéewal dolli fi naataange di ñaan it tabaarakallaahu suñu kilifa yi suñu kilifa yi diine ak suñuy kilifa yi aada yàlla na yàlla dugal leen ci kaaraangeem yal na yàlla dugal leen ci biir yërmandeem waaye yal na yàlla aaral leen boppam ci responsabilité yi nga xam ni moom la yàlla teg ci seen kaw te yàlla bu yàlla tas yaakaar mukk lépp loo xam ni njariñu réew mi la lépp loo xam ni naataange réew mi la lépp loo xam ni aafiya la ci réew mi yàlla na ko yàlla tàggat teg ko ci seen loxo ba ñun waa réew mi yëpp ñu mën ci jot mu mel ni tabaarakallaahu ah li ñuy dese mooy ñaanalit suñu kilifa yi rawatina suñu kilifa gi nga xam ni moom lañu fi wuutu di cheikh seydi mouhamadunil moustapha si bu sëriñ abdul aziz al amin ñu ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam te yàlla dolli ko wér tabaarakallaahu li nga xam ni mission maamam la mission yi baayam lañu ñu dénk ko ko tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla may sago bu mu ko yeggalee te bu gestoo it gis nu nun waa daayiratul muqtafina ci wetam ñi di ko ci jàppale ci biir di ko ci jàppale ci biti ñu ñaanal ko it liggéey bi nga xam ni moo ko yëkkati woon ba waral mu wuute bis bi yàlla na yàlla dugal ko ci kaaraangeem delloosi ko ci jàmm mu fekkaat njaboot yi ci jàmm ñu continuer liggéey bi ci jàmm incha allahu ñuy ñaanal mbooleem ay magam tàmbale ko ci sunu taawu baay sunu xalifa baay di sëriñ Babacar si bu sëriñ Abdul Aziz Al Amin ak ay magam sëriñ Cheikh Tidiane Sy Mouhamadunil Mansour sëriñ Mansour Al Maktoum sëriñ Mansour Sy Jamil waaye seeni rakk-rakkaat tabaarakallaahu sëriñ Seydi Ahmad sëriñ Abdul si Ahmad bu suñu baay Seydi Ahmad si bu sëriñ Babacar ak njabootu suñu wéyjur sëriñ Pape Malick si tabaarakallaahu soxna Fatima ak soxna Safiya ak seeni mag ak yaay ak seeni bàjjan ak seeni tànt tabaarakallaahu ak njabootu Seydil Xaaji Malik yëpp ñu ñaanal leen yàlla na yàlla aar leen sàmm leen yàlla musal nu yàlla làq fu yàq yeggul a ah, ñu ñaanit nawet bi yàlla na fi yàlla yàlla na ko yàlla indeeg jàmm te mu nekk nawetu jàmm nekk nawetu nataange te yàlla bu ci yàlla dugal benn ndok ci biir ak ci biti ñu ñaan tabaarakallaahu suñu mbokk baykat yi ni ñu koy séentoo yàlla yàlla yàlla bu yàlla tas benn yaakaar ndax nag kuy bay yaakaar doo nga am yaakaar boobu nga am ba dugal sa jiw di ca yaakaar lu ca mën a génnee yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas su ko defee ñu ngi tëj kàddu gi foofu di jéggaluwaat xam naa li ki fi toogoon daan def nun mënuñu ko waaye nag li ñuy wax rek ndigal soo mënee defal boo mënul defal loolu moo tax tabaarakallaahu mu boolenu ak comité bu tedd bi di bureau national bu daayiratul muxtafina ñu ànd ñoom ci njiital seeni xalifa ñang sëriñ fóode tabaarakallaahu ñoom xaaji euh, mara ak ñoom xaaji boubacar ñu ànd kook ñoom tabaarakallaahu ñëw fekk si mbooleem ñi nga xam ni ñoo ànd ak ñoom ci liggéey bi ba mu yegg si fii ñu ngi baalu àq ñëpp di jéggalu ñëpp di wax hada wa billahi tawfiq wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu